noo gisee làmb bëkki démb bi nga xam ne moo jàll semaine bi passé diggante Balla Gaye ak Bombardier combat bi neexoon na trop bëri nañ ci jàmm ndam ni génnul Sénégal waaw te ambiance bu ñu xamoon gis nañ ko ci Balla bu ñu xamoon ci Bombardier gis nañ ko ci aussi waaw bi neexoon na trop mais xanaa fair play rek di encourager Balla Gaye di féliciter Bombardier combat yooyu la baax am na ñu metti trop trop trop si Balla Gaye lu mu yembaree kaan affaire yooyu gars yi toog di ko xaar gars yi gis ñu fi dara wanewul dara si àdduna billaahi loolu moom mooy ñu metti trop trop trop Balla Gaye moom ñëpp bàyyi nañ ko ñëpp bàyyi nañ ko billaahi combat ba neex na trop jaar na yoon mais Balla Gaye dafa am loo xamante ni daf ko xaw a manqué si làmb mooy Balla Gaye dafa war a xoolaat euh, digganteem ak euh, sa famille ndax Balla Gaye boo xoolee jamono ji amul kenn koo xamante ni xam na làmb ku ko topp ndax keroog bi ñu nekkee stade gis nañ lu baree baree baree bëri Balla Gaye dafa wéet maanaam wéet gi mu wéet mooy euh, daan nañ gis euh, per Balla ci peggam ak papam te ñoom ñëpp ñàkk na leen xam nga ba pare daan nañ gis ay Elton la de xam nga ñoom ñëpp ñàkk na leen ba pare beneen bis topp mooy Balla Gaye dafa bëreeg euh, Bombardier premier combat Bombardier daan ko deuxième combat bi mu mel ni koo xamante ni joxul Bombardier Bombardier cër te Bombardier nekk na mbër boo xamante ni booy bëreeg moom boo ko joxul cër rek mooy loolu ay affaire de ay affaire de supporter ak affaire yooyu noonu saful Bombardier yëngalu ko. doole moom suyee na si mais Bombardier lim daan def di daanu moom la bàyyi si làmb ji li ma gis keroog lim def ni si contre Balla Gaye bu ko defee si yeneen bëri gisuma booy bu daan Balla Gaye am na lu ko manqué nag si wàllu physique bi parce que Balla ñun ñëpp xam nañ Balla kuy sénégalais xam nga kuy Balla ak Balla lim daan bëri. te toujours premier combat bi dama koy wax gars yi bi maa ne bu ngay xoolee Balla euh, benn coup bombardier day yàq bëreem toujours bu ko dalee daanaka xam-xamam day réer parce que fii si jour euh, lamb bi si guddi gi damaa gis si Balla loo xamante ni loolu mbër bu ko mayoon mu jaar sa flanc yi te boobu Balla defoo ko. def na lu mu war a def waaye vraiment ball euh, si ay guddeem vraiment tollatu fa fin carrière la nekk parce que Balla privé nag. Euh, dama yaakaar waa axlu lamb dañ koy dañ koy jéem a jaay parce que six combats dafa dis si moom vraiment waaw pour mu génn ci day métti lool. Bombardier daan bu mu daanoon Balla Gaye ginnaaw saako bi nga foogoon su fekkoon du Balla Gaye moo ko defoon Bombardier victoire bi nga foogoon nañ jox Balla Gaye foofu nga foogoon ne amul far entre diggante Bombardier ak Balla Gaye ci ndam boobu noonu bu mu jëkkoon am. loolu de waxatuñu ko Bombardier bu meloon noonu rek waxatuñu ko kii bi victoire bi victoire bi géej waaye yóbbu nañ ko bu yàgg waaw far moom am na fu ne depuis yonent bi am nañu far fi am nañu far fale far moom mënut a ñàkk moom mais chute bu Balla def bu ko Bombardier defoon moom joxe nañu fi bi moom loolu moom j'en ai sûr et moom noonu la ma doon demee. Euh, far gars yoo dañoo jënd arbitre ñoom Aziz Ndiaye dañoo jënd arbitre ñoom ñëpp dañoo jënd arbitre su ñu xam Balla Gaye moo ko daan jox nañu Balla Gaye victoire bu yàgg ba mu ñibbi billaahi. léegi foo teg ne que ñoom Aziz Ndiaye arbitre comme si que yow da fa nekkoon bi ñu ko doon jënd. waaw yow déggal moo la fekkee naa ko fekkee naa ko de Aziz Ndiaye xaritu Gaston la moo tax moo tëgg làmb yi ñaar ñoo yem. yow léegi Aziz bu nekkee xaritu Gaston rek yow da nga jàpp ne que moom na arbitre yi pour ñu a faral Balla Gaye si diggante boobu noonu. waaw loolu laay jàpp rek loolu laay jàpp xaritoo fa waaw. non loolu moom wax ju yàqu la ndax man maa ngi woon stade li ma la wax sànq ndax euh, làmb boo xamante ni tey comme par exemple Balla Gaye Balla Gaye moom moo déclenché mbot bi mu déclenché si biir lañ commencé si biti la Balla Gaye daanoo combat xoyantaan beeg Baye Mandione noonu la demee kiif kiif bu fekkoon Bombardier moo déclenché sax mais Balla Gaye moo déclenché ba pare moo daanu si biti saako yi kon loolu jël la te man am naa yaqin gu wér ni jour boobu noonu bu fekkoon Balla Gaye moo def noonu moo def noonu Bombardier wóor na alxuraani karim combat bi gars yi dañ koy yàq billaahi dañuy jox Balla Gaye victoire mu dem ñibbi. Boña sos euh, fan leen daan Boña ci gannaaw saa ah mais Boña démb gis nga ko. génne nañ combat am moo moog sos si gannaaw saako yi leen ko daane même Gris Bordeaux Eumeu Sène bi fan leen ko daane woon di si gannaaw saako yi combat yi ñu fi daan si gannaaw saako yi ñu joxe victoire bëri na lool yaa ngi dégg kon nag démb li amoon nii ñu ñëpp xam nañ euh, mafia bi am parce que boo ngembuxul Ndakaaru te nekkoo mbër mu bëri ay kii ñu ñëpp comprendre nañ ni mu fa demee mais Bombardier moom ah ñu ngi xaar lu koy yoon may rek. non loolu kay far la parce que Ndakaaru la ñu étudier euh, Ndakaaru xam nañ ñoom seen mbër mooy Balla moo Lo mooy seen mbër euh, keneen mooy seen mbër waaye bu nekkoon mbëru àll bi ñoom ñoo xaw a am tumuranke boobu parce que amuñu jàppale man loolu laa gis te moo am man Tigo loolu laa gis te vraiment ñu ak lu lamb yoo xam ne carrément waa Dakar dañu far parce que sud bi bu fekkoon bàlle la kon jeex na. gis naa ko ci ambiance bi mais gisuma ko ci bëre bi ambiance bi ñëwaat na mais bëre bi moom gisuma ko bu mu li mu daan indi ci bëre indiwu ko bii pa dafa ñëw rek taxaw di xaar xaw ma nag lan mooy problème bi exactement mais ñëwul. Balla Gaye bu njëkk ba ñëwoon na ci ambiance mais ñëwul ci bëri daa mel ni ku am leneen lu mu absenté ci combat bi daal des fois lu taxaw bu mu taxaw sax mu dul taxawaay mbër dafa laaj mu defaraat. mais ambiance bi ñëw na mais bëri ñëwul bala bi euh, bala bu daan ñëw taxaw ne la kaay kaay kaay mu ne kuy xaar wala kuy woo gelam non non bala daawul def noonu bala dafa daan ñëw rek bëri soit daan koy daan wala mu daan dafa war yokk quelque mag ci encadrement am. ñu wax heure bu muy dem ak heure taxaw loolu mooy manqué mais pas leneen mais nag des fois boo waxee ñu ne la ana nag Aziz Ndiaye daan ana nag ba ale daan defet a ñëw defet ñëw na day entraîné waat defaraat bu baax mais loolaa nit wax la rek day wax rek ma jéem a yokk entraînement bi rek moo ci ne defaruwaat xoolaat entourage am yàlla baax na daal yàlla mën na ko may ndam benn yoonate. non du benn moom wax dëgg fa du benn trop. baara yi bu nga doon gis ñëw taxaw ñeme la dóor la. jàppala daan la Balla Gaye boobu lañ xamoon nag maanaam Balla Gaye bii nii moom ah góob ne dina daan kenn si làmb instant fi ñu toll nii góob ma ko de. Balla Gaye bu njëkk ba ak Balla Gaye bi bokkul combat bi entraîné wu ci dara bañ ko ba mu summee ko laa ne non Balla Gaye liggéeyul par rapport ak Balla Gaye mañ daan gis Balla Gaye liggéeyul joxul Bombardier cër te Bombardier kuy bëreeg moom da nga koy jox cër boobal Balla Bombardier nekkul ay affaire de gàllaaj ak ay yooyu noonu ngay bëreeg mu ngi bëre yaa ngi dégg kon moom moo gën a xam Balla Gaye kër yu yi sooy sooy sooy bëreeg moom day dangay ngay dem nga liggéey nga xam ne làmb entraînement moom mooy moom mooy moom mooy feeñ si biir lamb ji mais pas ay affaire de mystique ak affaire yooyu noonu. Balla Gaye maanaam ñi ko doon topp ñu bëree bëree bëri ay ñoom ay ñoom Elton Elton da doon jëriñ Balla Gaye ndax Balla dafa nekk mbër moo xamante ni wax dëgg yàlla am champion la te làmb SA bi toll nañ foo xamante ni tey ay dem réew ay dem bitim réew yi sax pour man jaru ko quoi ndax fii nga mën a liggéey ndax mbër danga nga war a contact saf sàpp mais dem bitim réew entraîner foofu noonu yëkkati ay weñ affaire yooyu noonu ñëw fii non non da nga war a contact da nga war a contact parce que trois mois contact ko ba sa yaram bi dee nga xamante ni combat bi mu yàgg yàgg yàgg yàgg du la déranger mais nga dem réew ma nga di entraîner ay yëkkati ay weñ ak affaire yooyu noonu pour man loolu mooy loolu quoi mën nga liggéey fii quoi. non non même Balla Gaye bi ñëwoon Modou ak bii du benn parce que avant mi sumeeku man sama boy bi moo ma ko njëkk a wax boobu seetaan na ma ko tamit ne gisoo biiru bàll bi moo daw ñëw sama place na ma mën na ko non ko mën ko am na poids lourd yooyu bëri nag il faut loolu dana ci da arangé arrangé mais ba mu zoomé ko ma xool ko laa na ah instant am naa confiance yi Bombardier euh, contact am mi dafa dafa des parce que dégg nga Bombardier li lim la wax dana la bañ ko suñ premier contact euh, xam naa ne physique bi des na. Balla jàmbaar la waaye ak guddeem vraiment bu nekkoon lampe bu jeex presque dafa jeex Balla fin carrière la ne te yaakaar naa combat yi mujj nii ah, ba saay mu jéegulu combat yi wante defete moo gën gaaw de si yooyu